waa di ñëwaat di leeral ci wàllu jaara bi ndax cat jaara bi képp koo xam ne ne cat dalay jàpp boo ko takkee cat du lay jàpp te jigéen ñi nga xam ne ne am na xaalis am nañ alal dëkk nañ ci kër gu baax waaye mënuñoo am jëkkër wala jëkkër bi yuñ dem jëkkër ju ñu am mu yàqu góor ñi nga xam ne ne lu ne am nañ ko waaye jabar doo nga leen tënk gis nga nag loolu dafa am lu ko waral looloo tax seeraayu jaara ji ñi njëkk gi ñu def ci jaara bi mooy ñëg gi nga xam ne ne moom lañ ko liggéeye ndax loolu problème mu sarax la ak problème mu rawxaan moo tax saa boo ko takkee gis ci li nga bëgg moo tax góor ñi nga xam ne ne dañuy nekk ak jigéen sax jigéen nga dem baleen bun xamee seen tur ak seen turu soxna so buñ amee jaara bi waaw boobaa nag du doon jaara bu verte bi beneen façon jaara bi la muy marron bi nga xam ne ne jaara bu yéeme bi moo tax daal jaara moom caaxaane woon ko ndax xaatim bi siy def ak lan say def bàmmeelu nasaraan ak parfum bi muy àndal wallaay caaxaan amu ko moo tax nag liggéey daal liggéey bu am solo rek moo tax moo tax kuy dund di dee ah jar moytu daal